man maay euh, Mam Omar Mané euh, maire de la commune de Rufisque Nord. Euh, donc avant de répondre à cette question très pertinente damay remercier leen yéen nga yéen nga xam ni yéen ci presse bi alors yéen ngi def un bu am solo liggéey boo xam ne nii alors maire yi ak état bi ñoo ko def mais yen ngeen def ko à leur place honnêtement on vous encourage vous êtes en train de faire une bonne communication citoyenne et comme nous nga ko euh, bi nga xamni ni la une communication bonne une communication vraie une communication fidèle et authentique euh, ñenn rek ñoo ko war def de concert ak yéen presse bi muy les techniciens ñi nga xam ne ni dañu am xam-xam si wàll wi ñoom ñoo war def communication bi de concert avec presse mais malheureusement ñu bari ñu ngi occupé. Euh, communication espace de communication il faut dire les choses telles qu'elles sont mais situation situation bu situation grave une crise voire même une guerre guerre n'est pas amen. alors euh, askan bi a ben yor arme ennemi et puis, suñu ennemi bi moy feebar bi niñ koy xexé nak c'est très simple waxna ko légui euh amna xétu feebar yu da am ñuy utiliser les bàjjenu gox di utiliser les délégués de quartier les conseils de quartier les rôles communautaires ñuy dem di def sensibilisation de proximité mais spécificité fièvre bi nak c'est la sensibilisation à distance de wara def motax ma wax ko ci sensibilisation boobu yéen presse bi yéen rek yéen ko y a def évidemment de concert avec les techniciens pourquoi ma wax ça moy ne bi dafa nek feebar bu bu grave pourquoi parce que mode de transmission bi mode doy parce que les canaux de transmission ñaar la par gouttelette ou bien par contact par gouttelette moy boo secrétaire mun nga ko transmettre ki la jege boo tisoolee mun nga ko transmettre ki la jege bo waxé mun nga ko transmettre ki la jege pour éviter lolu motax kep koy waxal yoon nee respecter la distance au minimum de un mètre cinquante pour que transmission par gouttelette bobu meuna am bañ meuna am beneen bi si gën grave c'est la transmission par contact loolu j'ai fait. et li koy réglé, la seule solution bi koy régler c'est toog sa kër toog et di raxasu tous les 20 minutes te bo toge sa kër aussi na nga wara tok toog sa kër toog place parce que li grave si maladie bi moy la période d'incubation nit ñi ñett tok ni mais xamuñu kan moko ci si am <laughs> xamuñu kan moko ci am pourquoi parce que mën na la dugg mais bala muy feñ dina def minimum 14 jours yow boko xamul man xawmako mais luñu laal on a déposé le germe c'est là où c'est grave tay micro bi nga laal yalla tere bu fekkoon ni am ngeen ko mais man buma ko laalee dama koy am c'est là où c'est grave lampe ce cœur nga am ko xamoko nga ñew taal keneen bu ko laalee da koy am mais c'est grave ce matin ma ngi doon wax nga dem banque yi gap mais mais c'est grave la transmission par contact là est très grave et la seule solution c'est de limiter les déplacements toxiques.